dans les travaux publics xam na ne Demba Diop daal la donc loolu moo tax ñu bëgg a Demba Diop travaux yi ñooñu commencé su dee fédération moo koy defal fédération bi ma bokk su dee FIFA moo koy defal su dee nguur gi moo koy reprendre ak ku ko war a defal bëgg nañ ñu recommencé ko bu mën a jeexal jàmm mu am njëriñ pour effectivement la population maa ngi leen di remercier sant yàlla bu baax di ñaan yàlla nag lii nii mu nekk bu nekk première manifestation mais dernière manifestation parce que ñaan naa yàlla la liste de par rapport au ah, maa ngi leen gërëm bon li war a site bi mooy fii au niveau des on a constaté que depuis 9 ans amul infrastructure sportive bu disponible maanaam stade bi nga xam ne ñu ci liy fubalee boobu ba léegi stade bi dafa tëj te travaux yi wax dëgg yàlla dafa yàgg loolu moo tax nag ñu def sirine bi tey pour réclamer l'ouverture du stade dans les plus brefs délais waaw parce que nawetaan mi ngi agsi ñun fii au niveau des parcelles dañuy dem jusqu'à Pikine Guédiawaye des fois même Mbao di fóol foofu suñuy activité nawetaan loolu nag lañ bëgg mu dakk moo tey sirine bi nii tey euh, ban jàngat la si kii def nga euh, ki nga xam ne mooy maire parcelle tey ban maire parcelle bi tey ban jàngat la ci def moom ci loolu waaw mais xam nga édifice aussi de la responsabilité de l'État loolu moo tax ñu interpelle directement le ministre des sports à ce que mu def priorité stade municipal des Parcelles Assainies bi loolu moo waral jotaay ñu dagal leen délai waaw mais jox nañ délai comme ni ko président Amadou waxee mais ñun dañu bëgg au plus tard premier juillet stade mën a fonctionnel ndax ñu mën a démarrer nos activités voilà ni toppatoo mais parcelle faale ñu leen parce que duñu def dara li ma leen di wax nag mooy ñu ñëw ñu waxee ko président ODCAV de Dakar ñëw teew fi ñu wax ko comme ñoom ni ñu ko waxee ñu nangul nañ leen ko mais li ñu bëgg mooy balaa nawetaan bi di pare nañ defar stade bi suñ defarul stade bi du ñu fubal fii du ñu fubal nawetaan moo dul am te dinañ def dinañ def visite de proximité ba ñëpp dégg jot ci loolu noonu nawetaan moo am wasalaamaaleykum wa rahmatulah loolu laa mën pour wax loolu rafetlu nañ ko rafetlu nañ ko bu baax parce que loolu yàggoon nañ ko seet yàggoon nañ ko séntu parce que 2012 ba léegi ku jël stade tëj ko bu ñu jëlee stade bi tëj ko ba léegi loolu neexuñu dañ koy naxarlu mais bu ñu demee tey ba ñoom ñu ñëw fi kon ça veut dire que yëg nañ ñu ñun am nañ lu ñu métti loolu rek moo nekkoon loolu moo taxoon ñu jóg ñoom kon ñoom yëg nañ ñu am nañ lu ñu métti ñoom nañ ci taxaw nañ ci taxaw quoi balaa xam nga muy weesu quoi balaa leneen di jóg parce que Sénégal moo demee noo xam ne tant que gars yi yënguwuñu rek tant que yëngutuwuñu rek non duñu duñu duñu duñu ñëw seen kaw te ñun parce que parcelle ay noobu la fi dëkk quoi dépassé nañ niveau Il parcelle ay noobu fi dëkk état bi yëpp à ñuy en particulièrement Moussa mi nga parcelle Moussa dëkk ci a stade bi dafa a jël xar tànku Il dox ci dafa waroon xar zone parcelle yi li zone parcelle rek bir sonn ci équipe bi mais loolu dañuy dépenser tout dañuy ñuy tout te loolu dafa métti ci nawetaan kese te nawetaan xoolal waroon na dépasser loolu ñun waroon nañ dépasser niveau boobu ñu toog ba fii di soxla ay stade loolu laa amoon ci lu may wax. wasalaam ñaxtu bi li ko waral Nior mooy que ne 2012 ba léegi stade bi ñu ngi koy defar parewul donc vraiment mu mu jot vraiment ñu livré suñu stade ñu ngi sonn trop ñu ngi joué ay Guédiawaye ñu ngi joué ay Pikine ñu ngi joué foofu ay final ay match championnat yoo xamante ne bu jeexee da ngay gis ay xale yu am ay 10 ans 11 ans di jógee ay géejawaay di ñëw du point de vue sécuritaire y' a problème donc xale yi c' est pas sûr ñuy jóge ay géejawaay di ñëw mais du point de vue financier aussi y' a problème donc loolu moo waraloon tey doxu ñaxtu bi ñuy wax ne tey jii vraiment dañoo bëggoon vraiment stade ñu defar ko avant le 1er juillet et là ñu ngi interpellé le président de la république le président Macky Sall pour mu ñëw jàppale ñu loolu bu weesoo loolu bu weesoo loolu bu weesoo nous allons passer à une vitesse supérieure fees début bi fees del del del del Moussa Sy

parce que mëno té Alassane Djigo def nañ ko ñaari yon ci kaw parcel bu Guédiawaye def nañ ko ñaari yon ci kaw parcel tay ji bu bëggoon stade parana mais ah, c'est lui qui l'a tecc ci stade bi bayiko def fi ñaari ouvrier ba mu xamé ni def sitting do commencé ñi commencé liggéey depuis quand kenn gis ben ouvrier bu liggéey buñ commencé ba ñu yëgee ne sitting dañ koy def rek ouvrier commencé ñëw fi di tapalé bo def na buñ démé ñu arrêter affaire bi le premier juillet nak lañ len may maire bi té sax day dégager moom mandam jeexna depuis 2019 mandam jeexna lu ko fi déssé moy ay mutage ko may té inshallah rabbi si 2022 élection moko fi baye Macky ñu ngi message parce que bëggatuñu Moussa Sy mu ngi def nek na moy candidat candidat candidat bëggatuñu Moussa Sy na dem yoonam def na fi 15 ans deful dara parcelle 15 ans 15 ans yo xamante parcel parcelle amul eh, pavage zéro côté mur rek la pavage sonu ci